suñu gan egsi na muy Modou Diagne Fada nekk directeur général bu Sonacos xam ngeen ni altine bi la campagne njaayum gerte bi door fii ci réew mi ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm euh, Modou Diagne Fada. ñu ngi lay fay euh, soxna si di nuyu ñi fi nekk yëpp ci plateau bi Chérif euh, Aïssatou Diop Fall Malick ak. Marcel Marcel. di nuyu mbokku téléspectateur u euh, TFM yëpp. Hmm, Chérif Aïcha ñu bàyyi la nga door waxtaan ñu nuyu également baykat yi ñuy seetaan euh, DG ñu ngi lay nuyu bëggat wax nag wàllu njaayum gerte gi campagne bi altine bi passé la démarré yow nga jiite Sonacos bu ne Sonacos nag di xaar ni xëy na di ngeen jënd lu bari ci gerte comme ni ngeen koy defee saa su nekk fan ngeen toll yéen ci waajtaay est-ce que commencé ngeen a jënd déjà ci point de collecte yi. waaw commencé nañoo jënd ci euh, biir Sonacos loolu lañ mën a wax parce que point de collecte yi. opérateurs yi ñoo fay nekk ak euh, yenn point de collecte yu nga xam ne Sonacos moo leen gérer seen bopp mais quand même il faut dire que euh, campagne bi xaw na timide encore maanaam altine lañ commencé euh, teel na trop tey ba ñaari fan après ñu mën a def njàngat mais li ñu mën a wax daal mooy campagne bi ubbi na traite taxaw na ñi nga xam ne bëgg nañu jaay seen gerte. Euh, mën na ñëw jaay si ko Sonacos euh, ci njëg gu nga xam ne jàpp nañ ne njëg gu baax la ndax euh, juróom fukk ak juróom mooy prix plancher bi may fàttali rek ne prix plancher buñ ko xasee wax normalement coowaratul am ndax mooy kenn amul droit jënd lu yées juróom fukk ak juróom hmm. waaye ku mën a jënd jënde téeméer mën ngaa jënde téeméer ku mën a jaaye téeméer mën ngaa jaaye ku mën a jaaye 1000 francs mën ngaa mën a jaaye mille francs loolu nag jàpp naa ne su amee li tax euh, président Macky Sall doxale noonu mooy dafa bëgg protéger baykat bi pour que lu mu yées yées kilo gerte mu mën ci am 275 bu ci mën a am lu ko ëpp yi tamit mu mu am ko ci te jàpp naa ne gerte gi ak luñ ci mën di wax njëg gi at mu jot mu yokk daaw juróom fukk la woon ren juróom fukk ak mm. euh, juróom. Mm. ci plancher. yow nee nga njëg lu baax la mais baykat yi en tout cas yi suñ correspondant yi yónnee muy ci bassin arachidier ci fi ni bayee gerte moom doon jàpp ne njëg li xeeb nañ ñoom baykat waaw xam nga waa ku ku yore sa marchandise di jaay moom boo sañoon jaayee junni loolu dañ leen koy nangul euh, mais euh, ku mën a jaayee junni yi tamit yoon wi terewul nga jaayee ko. Mm. parce que loolu mooy pris plancher maintenant waxkat yi nga xam ne ñooy wax ci. rajo bi te xaj na li ñuy wax xamuñu ci dara nag ay baykat lan la du nay waxkat. déedéet déedéet ñu ci bari moom euh, yaa leen ñu fekk leen ci tool yi ñu yor seen. gerte non non déedéet déedéet wax ci rajo yi laa wax. ñiy wax ci rajo yi ñu ci bari yaa tane amuñu tool bayuñu dañuy profité ci situation bi rek pour wut euh, siiw pour euh, jéem a jaxase gouvernement bi état bi Sonacos ak baykat yi mais buñ ne prix plancher juróom fukk ak juróom mooy li yées. mais comme neex jaayal lu la neex yaakaar naa loolu warul mën a am. Mhm. loolu warul mën a am am am coow te tamit kenn mënul wax ne njëg gi seen n'est pas rémunérateur parce que gis nga CNIA bi nga xam ne. Mhm. mooy saytu wàllu. wàllu wàllu njëg yi. Euh, dafay dafay tàmbalee ci ba baykat bi ruujee ba mu ruujee euh, ba mu demee jëndi fasam walla nagam walla euh, mhm. lu muy bayee machine ba lu muy jaar hectare bi rendement bi luñ ci luñ ci yaakaar jiw bi ndax dañ ko subventionné wala subventionné wuñ ko. engrais bu cher ah non dama ne engrais bi. ndax dañ ko subventionné wala subventionné wuñ ko yëpp dafa parce que ñaari prix lay def. prix bu nga xam ne ak semence subventionnée ak prix bu nga xam ne semence ak intrant non subventionné lu ci nekk mu calculer ko ba nga demee ji ba pare ba nga raadoo ba nga bayee ba nga bayaatee ba nga deqee ba nga naafee ba nga. Euh, bàccee yëpp. Hmm. dañ koy jéem a calculer pour xool kilo gerte bi ñaata la ci nit ki dépensé après ñu soo ko degal marge loolu lépp nag bi ñu ko defee saytu ko juróom fukk ak juróom yi kenn mënul wax ne euh, baykat bi gisu ci boppam. Hmm. maintenant kuy jaay nag bénéfice su bi dërëm bénéfice su fukki dërëm soo sañoon ngam am bénéfice su hmm. ñaar fukk. bénéfice su téeméer. laaj bi mooy est-ce que Sonacos pare na. Hmm. ngir dépasser prix plancher boobu. at mu jot Sonacos dépassé ko li nit ñi xamul mooy. Sonacos lu muy fay opérateur bi koy indil gerte at bu jot mu dépend mu mu romb prix plancher parce que Sonacos mooy fay opérateur bi nga xam ne mooy jënd mooy fay tamit ki nga xam ne moom mooy euh, transporteur bi moo koy moo koy fay donc man li may jëndee gerte du juróom fukk ak juróom li may dikk du juróom fukk ak juróom lu ko ëpp la foofu dana romb juróom benn fukk. Mm-hmm. xamante ni moom mooy euh, stratégie bi nga annoncé que ko mettre na ko en place euh, mu di euh, budget bi nga xamante ne na ngeen ko doubler pour achat à graines yi passant donc de 26 milliards à 52 milliards de francs CFA ci campagne bi ñu doon laaj sax fii ndax loolu dina doy justement ma lay delloo laaj boobu yaakaar nga ne loolu dina doy ngir mën a fexe ba concurrencer li nga xamante ni moom mooy lu ñuy tuddee mbapat ci ci milieu boobu waaw xam nga daaw ñaar fukki milliards ak juróom benn la ñu lebaloon pour ñu jënd gerte ren ñu lebal ñu juróom fukk ak ñaar pour ñu war a jënd gerte mais juróom fukk ak ñaar yooyu bis bu nekk ma fàttali ne banque locale yi nga xam ne suñuy partenaire lañu at mu jot ñoom i tamit dañuy participer ci financement campagne bi donc jàpp ma ne jàpp ma ne mën nañu indi gerte ci Sonacos lu ñu mënul fay parce que même bu ñu commencé woon a jënd xaalis boobu jeex ñu dañuy jënd def dëwlin def ràkkal jaayaat donc même loolu ñuy jaayaat bu ko jaree war nañ koo mën a dugalaat encore ci campagne pour financer ko donc problème mu xaalis moom at mu jot ñu wax ne euh, xaalis bi mu fi njëkk gerte gi yaakaar naa fi kenn déggut bon impayé mm. ay leneen ak leneen parce que xaalis moom at mu jot dafay dafay jot dafay dafay doy te ren tamit euh, gëm nañ ne li ñu am ci euh, xaalis doy na sëkk. ñaata la. juróom fukki milliards ak ñaar moom la ñuy xaar ak li nga xam ne banque banque locale yi daañ ko participer ñi cinq milliards ñi dix milliards en fonction de nos besoins en fonction aussi ni campagne bi di di di di mm, directeur est-ce que jàppoon ni euh, mën nañu dem ba xaw a soppi doxalin tuuti ndax bu ñu subventionné yaa ngi koy wax sànq intrant yi muy engrais beeg euh, semence yi di ko joxee di ko jox baykat yi et ndax euh, ba pare ñeneen di ñëw di jël pepp yi nga xam ne moo gën a baax di ko yóbbu. soit ñu def loolu nga xam ne dañ leen di dimbali ñu ne leen fii la gerte gi di des dara du dem wala soit dimbal du am du tout léegi de ce fait ñoom euh, béykat yi ñoom ñooy tànn ku leen neex ñu jaay leen seen. Euh, xam nga loolu mooy débat de de de fond bi parce que béykat bi su fekkee dafa euh, bu fekkee état bi nga jàppale ko dafa ne dafay subventionné jiw bi bu fekkente ne pour jàppale ko dafa ne dafay subventionné intrant bi bu ñu bayee rek ay gan ñëw jël gerte gi gën a baax. gerte gi gën a bari dëwlin yóbbu yóbbu matière première benn valeur ajoutée du ko am sénégal yi duñ ci duñ ci liggéey lu dul bénéficier fay jóge ay nit ñoo koy jël dugal seen poste yaakaar naa loolu mënul suuxat koom-koom bala ngay laax jaay da ngay laax lekk ba pare dañu war d'abord taxawal benn stratégie bu nga xam ne te loolu mooy position gouvernement bi industriel yi bi nañu am lu ñu lu ñu liggéeyee parce que bu ñu amul lu ñu liggéeyee Euh, ñii nga xam ne ñoom ñooy travailleurs yi duñu liggéey parce que Sonacos ak beneen usine ci am ay saison saisonniers lay jël c'est-à-dire dañuy jël nit pour mu liggéey bu fi liggéey amee mais bu fekkee liggéey amul saison yi da leen di dàq doo leen jël maintenant pour Sénégal yi mën a liggéey il faut kër gu mel ne Sonacos am gerte mais aussi dañu wax ne lu jiw a jeexul jógu fa il faut aussi capital semencier bi ñu mën ko bàyyi ci réew mi mais bu fekkee dañuy jël gerte yi gën a baax yóbbu bitim réew ñi nga xam ne ñooy waxal ñooñu jàpp naa ne ci ñuy xeex Sénégal lañu. oui mais vous parlez des chinois mais il faut aussi son a Sonacos def benn stratégie boo xamante li chinois di proposer ngeen def ni ñoom. sinon aussi baykat moom day xool fi intérêt nekk xam nga xam nga lii problème bi. baykat bi mën naa seet fu ko intérêt fu intérêt nekk. parce que encore une fois kenn tere wu ko. mais xam nga fan la problème bi nekk bu ñu jaawalee pouvoir d'achat wu chinois bi ak pouvoir d'achat wu sénégalais bi parce que tey su ñu nangoo ñu jëndee kilo gerte mille francs nañu nangu aussi jënd litre dëwlin mille francs baykat bi consomateur la euh, journaliste bi consommateur la keneen ak keneen consommateur la lu njëggi gi cher ci prix producteur bi nañu nangu aussi dëwlinu gerte cher noonu loolu tamit c'est un autre problème chaîne de valeur la chaîne de valeur nag dangay xool baykat bi na am tuuti euh, industriel bi na am tuuti opérateur bi na am tuuti transporteur bi na am tuuti exportateur bi na am tuuti mais bu fekkee dafa am ku nga xam ne dafa moob lépp yóbbu ñeneen ñi ñooy mujj di trinquer te loolu souvent mooy daal aussi consommateurs yi parce que foo waxee ñu ne gisuñu dëwlinu gerte foo waxee ñu ne dëwlinu gerte dafa cher mais li tax mu cher aussi xam nañ ko mooy li ñuy jaayee gerte gi aussi dafa cher loolu nag mbir la bu nga xam ne mbir mu mbir mu mbir mu mbir mu doy waar la c'est la raison pour laquelle li ñu jàpp mooy ñi nga xam ne dañoo bëgg dëwlinu gerte bu ñu demee ci grande et moyenne surface yi daañ ko fekk mais njëg dañ koy jëndee nag. dana nekk njëg gu xam ne njëg gu xaw a xaw a cher pour ñëw si campagne pour ñëwaat tuuti si campagne bi objectif bi mooy un million cinq cent mille tonnes. nday tey ndax ak ni nawet bi demee ci yenn zones yi euh, demeewu fa noonu ci yeneen zones yi xëy na durée bi nawet bi durée ren dafa bett ñu bari ndax taw bi dafa mujj bari ba gerte yu bari amaana di saxaat ndax tey ak camp ak euh, hivernage bi ni mu demee yaakaar ngeen ni di ngeen am gerte gu mucc ayib. ci biir réew mi ak tonnage bi ngeen soxla ndax di ngeen ko mun am. waaw ñun tonnage bi ñu soxla moom suñu conseil d'administration xam na ko top management bu Sonacos aussi xam nañu ko mais du ñu wax ne nangam ji la ñu soxla ci objectif de collect parce que nag stratégie de marché bi dafa libre ay concurrents dañ fa nekk kenn du révéler en public sa stratégie par contre. yaakaar naa li nga bëggoon wax léegi du objectif de collecte bu Sonacos mais production bi ni ko estimé ren mooy un million cinq cent mille tonnes la ñu wax ne moom la ñu war a am ci ci ci ci ci gerte. alors 1 million cinq mille tonnes nag normalement ñëpp xaj nañ ci war nañoo mën a jël ñun huiliers yi capital semence bi war nañ ko mën a euh, sauvegarder mais ñi nga xam ne aussi ñooy exportateurs yi war nañu ci mën a am seen seen wàll. donc gan ñi nañu ñëw kenn bañu ko ñi ñu wax chinois yi nañu ñëw kenn bañu ko mais nañu encadrer seen ñëw parce que tamit gan nag du yow yi béy. Mm. Ah, mënoo ñëw yow euh, euh, sénégalais ba fekk ko ca tool ba. daal ne ko léegi euh, parfois sax ñoo xam dañu dem ba jënd tool bi mm. avant ñu koy déqi teel a waaw teel a def non non duñu jënd non duñu jënd gerte gi tool bi la ñuy jënd maanaam début nawet bi sax la a ne xam nga booba nag njëg gañ koy jaayee ah. njëg gañ koy njëg njëg gañ koy jëndee baaxul te nañu def ndànk gis nga chinois yi ñuul yi nekk ci marché yeeg luuma yi di jënd gerte bu ñëwee ne la jaay ñu sa gerte ne la ñu mën nañ la fay 300 hmm. wala mën nañ la fay 325 mais euh, seen li ñuy peese poids yi contrôle économique xoolu ko ba xam poids mat na wala matul seen bascule yi contrôle euh, économique xoolu ko ba xam bascule yi baax na wala déet yow mën nga ñëw jàpp ne def nga affaire jaay nga sa gerte trois cent vingt cinq fekk nax nañ la ci suuf parce que peese ba matul. Ah. donc loolu yi tamit dañ ci war a veiller ba nga xam ne ñiy dem ci luuma yi di jënd. matériel yi ñu jor nekk ay matériel yu baax parce que bu dul loolu ñooñu ñooy gën a rey baykat yi ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci circuit officiel bi ñoo nekk Sonacos di jënd ak ay instrument de mesure yu nga xam ne yu yu baax la. Sonacos directeur directeur est-ce que fekk ji nga xam ne ñooy jaay. Sonacos daaw daaw tàmbali na loolu. daaw dañu ne rek duñu rek aju ci opérateur bi parce que opérateur bi moom bu ko arrangé mën naa jënd su ko arrangé wul mën naa bañ a jënd daaw nag démarré nañ benn expérience am suñuy point de collecte bopp. dem di jëndal suñu bopp au prix officiel mhm. euh, à travers le Sénégal expérience boobu ñu defoon daaw ba yàlla may ñu am cent trente mille tonnes même expérience daañu ko reconduire ren am suñu point de collecte bopp à travers le pays mhm. bon maintenant campagne bi day soog commencé point de collecte yëpp commencé gul fonctionner mais jàpp nañu ne fekk semaine prochaine yëpp dina commencé euh, fonctionner ba Sonacos aussi mën ci gis directeur foofu sax laa bëggoon euh, addu par rapport ak euh, li ñu daan gis ci dëkku àll yi surtout dans le bassin li ñu doon woowee coopérative COPE wala SECO yooyu bi ñu nekkee xale daan nañ ko gis dañu jékki saay amatul wala doole bi mu amoon wàññeeku tuuti fan ngeen toll tey ngir redynamiser li ni surtout ak opérateur économique yi ci doon dugal seen loxo les privés là Euh, fan ngeen ci tollu également en terme de collaboration pour loolu gën a jege ñi nga xamante ne ñooy producteurs yi. waaw li nga wax dëgg la c'est-à-dire euh, point de collecte ci boppam moo amatul ay équipement c'est-à-dire tey nga dem ci point de collecte. doo fa fekk taara. taara ah, te ñëpp xam nañu taara. te loolu tamit problème yu lay lay indi parce que opérateur bu ñëwee ci point de collecte jënd. ñu ne ko saako bi daal la ngi nii peese rek yóbbu. Mm. moo xamul nekk ci bi mais bu ñëwee Sonacos. Mm. suñ ko bëggee taara daan du ma taara. ndax ba may jënd ci baykat bi. taaraar amut loolu mooy séparé bu baax beeg mooy séparé gerte bu baax bi ak. gerte bu woyof bi wala boog séparé gerte bi ak suuf seeg yeneen yi ci tam <laughs> alors ak ak waaw manuel bi kajoor ñun xam nañu ah, non ko xamul <laughs> balaa ko gerte bopp muy reetaan alors léegi maintenant pour ñu pour ñu defar loolu pour ñu séparé ko euh, loolu mooy taaral mais léegi loolu dafa amatul nag mm. loolu nag seeñaa war na waxtaan ak euh, ministre bi waxtaan ak ñu mel ne que parce que sëñ moo ko moo moo yore loolu. pour que taaraar dellu si. parce que taaraar mooy tax d' abord yow li ngay jaay mu sell. mooy tax tamit du am coowul abattement at mu jot ngeen dégg ñu la ko opéra ñoo naan abattement. te ñun ren ngir yombalal leen ko yéegal nañ suñu taux d' abattement ba 2 pour cent. nga xam ne daanaka daal nangu nañu cent yu nekk ñu jënd 2 pour cent suuf. loolu mooy presque abattement. maintenant boo ko rombee nag. ñu abattre la euh, bu ko defee nga fay. li nga xam ne moom mooy mooy suuf si. Mhm. man nag affaire gerte yeeg yooyu xam nga comme xaw ma ah, ci dara xaw ma ci dara boo amee beneen question bu campagne nga xaat ca fin ba xaw ma dara ci affaire gerte bàyyi naa ko ak yéen du ma dugg léegi man li ma li ma intéressé laa laay laajte man politique ba ma intéressé non non non ba ñu pare ci campagne bi mais mais da ngeen gaaw temps baa ngi Aïssatou Aïssatou Aïssatou dinañ la may benn laaj ci politique nga tëj comme ça nga tëj comme ça nga tëj baykat yi duñ toll ñi euh, seetaan moom campagne bi voilà c'est ça mais yow bayoo moo tax waaw euh, Chérif parce que bu ñu wax Sonacos oléagineux la ñuy wax ndaamaraas bi am na fi ndax loolu tamit nekkul loo xamante ni daf ñuy échappé tournesol également mën nañ ko fee def ndax loolu nekkul loo xamante ni war nañ ko cee boole mu bañ a nekk gerte kese surtout pour un terme de consommation marché bi li ñuy soxla ñu mën a diversifier bu baax wàññi jéggaani euh, bi ñuy bi ñuy amal ci diwlin bi euh, xam nga oléagineux la ñu wax. Hmm. oléagineux nag du gerte dong. c'est lépp lu nga xam ne mën na génnee dëwlin rek. Hmm. oléagineux la ndaamaraas bi. Euh, palme bi. Euh, tournesol tournesol soja et cetera. Hmm. bon mais Sénégal nag li ñu fi xam. li ñu fi gën a xam wala li ñu fi gën a béy. mooy mooy gerte. moo tax ñu bari bu ñu nee Sonacos ñu jàpp ne mooy société bi euh, commercialiser gerte mais ñun tey mën nañu commercialiser bépp oléagineux bu nga xam ne am na cere réew bi d'ailleurs dëpp ñaari at. ñoo ngi jënd ndaamaras ci biir euh, Ziguinchor mhm. muy noix de cajou euh, di ko di ko euh, defar di ko jaayaat jamono ji ñuy wax yow ñu ngi négocier ak benn banque pour que mu lebal ñu xaalis pour ñu mën a wut unité de transformation des noix de cajou à Ziguinchor parce que loolu tamit dafa nekk filière bu nga xam ne Sonacos dafa ci war a dugal loxoom pour stabiliser ko parce que aujourd'hui ba Guinée Bissau ba feneen barki démb rek ba ministre de l' agriculture di dajeeg son collègue de la Guinée Bissau question boobu ñëwaat na. camion sénégalais yi ñooy dem dugg Guinée Bissau di jënd euh, noix de cajou yi mais bu ñu ñëwee Sénégal dañ koy defaat ci bateau mu dem. te nag encore une fois pour sénégal yi mën a am liggéey pour sénégal yi mën a mën a mën a mën a mën a am euh, valeur ajoutée. il faut ñuy transformer suñu matière première bi ci ci ci réew mi. bon ministre l' agriculture. Euh, ci ndigalu président nee na dina xool nu ñu taxawalee ay ay ñu ñu gën a jàppale diwlinu palme bi. pour que comme moom la Sénégal yi gën a gën a a jënd euh, du du nag bi gën ci wér-gu-yaram bi gën ci wér-gu-yaram moom mooy. Euh, bi nga xam ne mooy doole. que jamono ji toutes les usines de la Sonagas ñi ngi ñi ngi fonctionné parce que biñ ko renationalisé gisoon nañu yoo xamante ni si bëri à l'arrêt la. waaw xam nga c'est c'est vrai biñ ko rena bi ñu ko privatiser. la nekk à waaw bi ñu koy bi ngeen koy renationalisé. da nga fekk mu nekk à l'arrêt Abbas Jaber bi non bi ñu ko privatisé. Mhm. la dox tuuti nekk à waaw président Macky Sall pour man le premier acte de redressement de la Sonacos bi mu posé mooy la renationalisation de la boîte. Mhm. maanaam delloo si Sonacos ci jiba état du Sénégal moomeelu état waaw. waaw moomeelu état te loolu yaakaar naa ba mu ko defee ba léegi Sonacos fu nekk lañ ko fay tudd xam nga Sénégal yi duñ tudd lu nga xam ne amul ci ñoom njëriñ. tolloon ay temps déggatoo Sonacos fenn léegi nag rajo boo ubbi Sonacos léeg-léeg ñu jox pouvoir yu nga xam ne Sonacos Sonacos amu ko parce que ñoom jàpp nañ tey prix gerte Sonacos moo koy fixé te sonakos fixé wul prix prix gerte donc sonakos mu ngi mu ngi mu ngi dox sonakos génn na ci cycle de perte yi mu daan def. léegi sonakos ñetti at yi yëpp mu ngi ci ay bénéfices. ñaata 300 millions en 2019. 1 milliard en 2020 et 1 milliard 200 en 2021 2022 jeexagul donc te loolu pour que Sonacos jóge ci cycle de perte dugg foofu mais quand même njiitu réew mi daf ci jàpp wa tey jii may wax te loolu la xam ba nga xam ne nee na incha allah daañu financer plan de réhabilitation de la Sonacos bu 20 milliards parce que quand kër gi xaw na màgget hmm. euh, installation yi xaw na màgget waaye nag li ñu wax naan ñaaw ngemba rafet euh, bëre parce que quand même ñi nga xam ne ñoo fondé Sonacos indi woon fi ay équipement européen yu nga xam ne ba léegi lu ñu màgget màgget ñu ngi defar dëw lu ñu màgget màgget tamit ñu ngi xolli xolli gerte gi ñu ngi ci seen i mbëbët tam am seen i suufu bopp di béyal seen bopp euh, comme ça euh, béykat yi encore waaw xalaat la am na ñu koy xalaat mais xamu problème bi mooy uh-huh. Sonacos dafa mission de service public tey bu Sonacos doon jël di bayal boppam waa bis bu chinois yi ñëwul kuy jënd gerte baykat yi xam nga nit ñi dañuy wax mais ñoom contrôlé wuñu leen bu leen neexee ñëw bu leen neexul ñëw mais bis bu chinois yi toogee benn at ñëwuñu. ñëw moom chinois yi tegal nañ la. oui ma ka non di du tout chinois yi nañ ñëw samay xarit la ñu sax parce que sañuy client lañu aussi par ailleurs amul benn problème mais dama ne chinois yi heure bu ñu toogee benn at ñëwuñu su boobaa kan mooy jënd gerte gi su fekkee Sonacos dafa dee. Mhm. benn ñaareel bi aussi bis bu ñu bàyyee gan ñi dong ak filière bi bañ Sonacos amatul Copéol amatul waaw amatul beneen société buy jënd amatul mais bu neexee gan ñi ñu ne ñaar fukki dërëm la ñuy jënd gerte gi. loolu nag jàpp naa ne un état responsable. mënu mhm. ko munu ko munu ko seetaan te comme nu sommes dans le cadre d'un état responsable moo tax ñuy régulé d'accord ñuy réguler la commercialisation. de la ay sotu gerte gi ba tey rek ah, dernière question gerte gi. parce que zone bu nekk xëy na ak xeetu gerte bañ ba nga xam ni fa lañ koy bayee. Mhm. ci ciblage ndax am na zone bu nga xamante ne nii moom moo gën a nekk seen priorité par rapport ak beneen zone ndax am na gerte arachide de bouche am na gerte law am na gerte fuure ça dépend ci gerte gi nga xam ni moom moo gën a ëpp dawlin ci yéen <laughs> waaw waaw ah, ah, am na fuure am na na law am na yooyu yëpp. mais xam ngeen ne léegi xam nga bassin arachide bu ngeen xoolee euh, ci kaw la tàmbale woon mooy au nord. Euh, au début des indépendances et avant les indépendances léegi nag boo demee au nord vraiment mbayum gerte mu fay xaw a wàññeeku parce que taw bi demu fa noonu te suuf yi tamit xaw na xaw na xaw na faible. boo ñëwee ba ci centre du pays muy digg réew mi fi mu toll nii mooy bassin arachidier mooy diggante région Kaolack. région euh, mooy région Kaolack département région Kaffrine euh, mais léegi li ñu constaté at ñu passé yëpp mooy euh, le front de l'arachide mu ngi poussé vers le sud tey un département comme na Yoro Foulah c'est presque le nouveau bassin arachidier du Sénégal d'ailleurs loolu la Sonacos xam ba nga xam ne moom dafay topp zone de production yi il y a ñetti at Sonacos Louga la nekkoon Kaolack Diourbel Ziguinchor ak Dakar tey jii may wax ak yéen Sonacos mu nga mu nga Ida Mouride am na fa Seko mu nga Sinthiou Malem dans le département Tamba mu nga Dioulacolon dans le département de Kolda pour topp zone yi nga xam ne moo am ay ay projet Aïssatou Aïssatou ah, Chérif euh, waxtu bi jeex na ah. cher que on a procédé mais côté dëwlin gi. Mhm. naka la ci Sonacos mën a joué rôle ba consommateurs yi aussi yëg quand gi. alors alors alors mais xam nga dëwlin bi ñu wàññi encore une fois mooy huile de palme parce que mooy l'huile la plus consommée moom mooy jar 1200 francs à Dakar conseil de consommation conseil régionaux de consommation yi conseil bu nekk région bu nekk yaay réunion déterminer ce prix par exemple Thiès wax nañ ne lay jar. butéelu diwlin bi beneen région aussi dina ko dina ko def maintenant niñ mën a def ba diwlin bi pare yaakaar naa mooy li président Macky sàll xalaat mooy nañu réhabiliter machine yi parce que bu ñu réhabiliter machines yi liggéey boo daan def ñetti waxtu mën nga koo def ci benn waxtu euh, rendement bi nga daan am ci mi tonne par jour mën nga ko tripler alors loolu nag su ñu ko boolee. yokk suñu taux de rendement yokk suñu capacité de production suñuy capacité de de de conservation de stockage loolu mën na feeñ ci njëgu dëwlin bi mu gën a wàcc. parce que liy cheral njëgu dëwlin bokk na ci les coûts de production machine yu magget moom euh, foo jaar jënd ay pièces de rechange foo jaar di jënd ay yeneen ak yeneen ak yeneen yu nga xam ne boo ko rajouté ci prix bi. buy génn fu mu jaar xaw a xaw a cher donc plan de réhabilitation bi waa énergie bi dëgg la parce que tey ci courant la ñuy branché courant Sénélec mm. mais amee suñu plan de redressement boobu nga xam ne ñu ngi ñu ciy jàppale euh, gouvernement bi dana ñu ci jàppale muy 20 milliards bu ñu paree bu ñu ko amee dañuy changer centrale d'énergie bu Kaolack changer centrale d'énergie bu Ziguinchor bu ñu changer centrale d'énergie daañu mën a jël suñu coque d'arachide bi di ko transformer en énergie dema dema dema sam mën nañoo dema dem ba nga xam ne sax mhm. courant bi ñuy am mën nañoo ëpp bañ koy jaay Sénélec na exemple par mhm. loolu xewalu mm. euh, Sénégal euh, Aïssatou euh, laaj bu mujj bi politique bi. waaw ci politique mooy xam nga souvent léegi Sénégal danañu fàtte ne Modou Diagne Fada homme politique la. <laughs> fii nii dafa dafa jaxasoo gerte gi ba xaw nu rox sax tuuti gerte <laughs> moo tax yéene naa ko coono ji nga xam ci ci ci mais li ma la bëgg a laaj mooy ma fàttali ne Modou Diagne Fada plusieurs fois ministre plusieurs fois tout ce qu'on Euh, euh, c'est aussi un leader de parti euh, le bien nommé LDR Yeesal mais sa parti bi ba nga duggee ci Benno Bokk Yaakaar ba tey déggatuñ la déggatuñ la dematoo amatu leen ay activités en tout cas dégguñu bureau de réunion bureau de de bureau politique dégguñu communiqué bu ko sanctionné élection yi jaar na fi. dégguñu la gisuñu la xanaa ba élection yi jàllee ba nomination si gouvernement amee am na saa yu gars yu génn euh, wane un peu comme euh, ñu bëri seen euh, naqar ci li ñu jàppee le peu de considération bi ngeen am ci biir benn bokk yaakaar donc laaj bi mooy. Mhm. question actuelle yi nga xam ne les questions de l'heure dégguñu la si muy le troisième mandat dont dont on parle bien la troisième candidature dont on parle ci président Macky Sall. Euh, euh, euh, bëgg nañ xam aussi yow pan nga positionné wu en tant que parti ci fu ñu jëm ci politique fu ñu mhm. jëm est-ce que da ngay da ngay sa compagnonnage ak Macky dafa am àpp wala day continuer ba 2024 waaw wala déet <laughs> alors Aïssatou Aïssatou yow nee nga yaa ngi topp politique bi suñu commité directeur mu ngi gëj a réunion matul quinze jours. kon na siiwul. non non waaw waaw mën naa siiwul. Euh, euh, siiwul euh, te ba ñu réunion wee def nañu communiqué. bu nga xam ne gisuma ko fenn dégguma waaw xam naa ah, fekkoon booba ngay nopp loolu nga dem waalo moo tax moo tax moo tax déggoo ko mais bu amee parti bu dynamique bu amee parti bu dynamique parti bu nga xam ne dafay réunion régulièrement ay xalem di réunion ay jigéenam di réunion ay cadre am di réunion yaakaar na LDR yeesal amul benn 15 jours bu ñuy toog te comité directeur du daje aborder euh, l'actualité discuter ci waxtaan ci jël ay position euh, jàpp naa ne loolu euh, moom lu lu lu leer la d'ailleurs dinaa la yónnee la dernier communiqué nga xool date bi. Mm. alors maintenant euh, d'ailleurs bi ñu réunion wax nañ ci affaire li ngay wax troisième candidature wala troisième mandat. Mm-hmm. ñu dañu jàpp ne muy sa avis yow ak. avis shérif ak bu keneen avis bi am solo mooy avis conseil constitutionnel am ah, nga ci am sa xalaat mën nga ci am sa gis-gis keneen mais yaakaar naa liy compte liy dox mooy avis conseil constitutionnel moom moo mën na tranché question boobu nga xam ne est-ce que président Macky Sall am na droit am troisième can euh, candidature wala amul droit am troisième candidature. mais loo ci xalaat yow mooy yow yow individuellement loo ci xalaat. dégg rek loolu mooy benn. Hmm. ñaareel bi. Euh, paaka kenn du ko jiitu mbaram. foofu na yaa ngi daw nag. waaw jàppee ko noo bëggee foofu yaa ngi waaw da ngaa déggul wolof. foofu yaa ngi teg da ngaa da ngaa déggul wolof. paaka kenn du ko jiitu ci mbaram. Eh. en tout cas ñun ñi dëkk Kajoor loolu la ñuy wax. borom borom parce que boo jiitoo paaka ci mbar rek. yaa ngi def erreur. Sénégal li nga wax ne ah. c'est confortable pour yow mën naa jëw fekk la fa bojj la. c'est confortable pour yow ndax boo nekkoon beneen position di nga wax. waaw d'accord fii nii kay da ngay da ngay tefes rek fii nii da ngay waaf moom. waaw man Aïssatou nu la neex tuddee ko ko. Ah, mais daal paaka paaka kenn du ko jot ci mbaram borom yëf yi dañu bàyyi ba mu waxal boppam ba xam bëgg na. mais loo xalaat yow mais mais man grand. moi moi c'est ton avis que tu te demandes xam nga les si si si musuñu def àdduna. benn mm. nañu xaar dabat borom yëf yi waxal boppam ne bëgg na mais loo si xalaat yow yow yow